seytaane bu la bëggee jekku dëgg dalay gëmloo ne nit ñi dañoo am différence nit ñi li leen di différence différencier nekkul nit ñu bindee ñun ñëpp nit ñu bindee benn la xel mi ak xol bi ci lañ rawantee cër bi la yàlla jox moom la jox sa moroom boo ci moyee yàlla ba mu xañ la aljanna yow dong nga yaay perte sa morom cër boobu lañ ko jox mu jaamu ci yàlla ba am ci aljanna dafa mel ni sa baay jox la fukki junne nga jël fukki junne ya lakk ñu jox sa morom fukki junne mu liggéey ci ba am vingt million wala vingt milliards yow rek yaay perte kon nit ñi leen bindee benn la waaye dangay fexe ba nga def li tax ñu bind la mooy jaamu yàlla kon nit ñi ñu ngi rawantee ci am xel ak ab xol